arrestation yu activiste yi ak ñi nga xam ne ñoo di militant Pastef fii mi ngi woy di am ginnaaw coowal Adji saar ak Ousmane Sonko ba léegi jeexagul ñi ngi gën a yokk ci xar mi karaw tey ci suba dal dina ñuy jàppaat ki nga xam ne moom moo di uh, Dame Mbodj bu CUSEMS ak Abdou Karim Gueye ñu gën ko xam ci Karim xrum ginnaaw bu ñu doon amal ab mars ca place de l'indépendance mu nekkoon jàmmarloo bu métte métti ci diggante militants yi doon mars ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di takk der yi uh, ba waral ñu dal di teg ñaari nit loxo ñu fekk ji ki nga xam ne moom moo di Guy Marius Sagna Clédor Sène ak Assane Diouf ñi nga xam ne ñoo di journaliste yi sax seen yoon nekku ci woon waaye mujjee nañu leen caa boole ginnaaw bu ñu leen lànkalee ñu amal seenub liggéey comme teg nañ loxo Abdou Karim Gueye ak ki nga xam ne moom moo di Dame ñu fekk ji ñi nga xam ne ñoom ñoo di seen i suñu gal 24 dina wéy di leen toppal boobu boobule xibaar ba lépp lu ci yembaat dina ci dikkaat ànd ak yéen ngir andil leen cay leeral